bu fekkee wolofal nga gën a xam man nga yépp ab libi bu ëmb lépp lu nu jota sotti ci wolof ci mbindum arab amul ojo